বুলুলে chers internet yu kenn bëggul TV dal leen jàmm dalati leen jàmm ci li gën a fës ci ëtt yëglekaay ñu commencé kook 24 heures yéenekaay yi mu dellu siwaat ci élection locale yi yéenekaay bi def taxaw seetlu ci position bu Macky Sall mi nga xamante ne nii bi mu nekkee ci nguur gi léegi nekkeewu fi lu dul opposition bi yéenekaay bi dañu xamal ni li jëra laaj ci kay dëgg moo di mairie bu Dakar bi dafa am lu mu am lu beneen mairie amul ba tax na acteur politique bu am ambition nekk maire bu Dakar wala nga bëgg a nekk sax président de la République moom njiitu réew mi Macky Sall dana la xooxatal yéenekaay bi def taxaw seetlu ci kaawu Barthélemy Diaz mi nga xamante ne nii gannaaw Ousmane Sonko Khalifa Sall moom lañu visé teg ci di laaj est-ce mii dina mucc ci pexe Macky yi lii moo jëral ci Macky Sall ne ni jamono ji jommi jommet la def ci ay principe moom njiitu réew bëri na ci ay bëgg-bëggam yoo xamante ne di ay ji ñoo ko dugal ci guuta bokk na ci rek kàngam yi nga xamante ne ni fu nekk la leen jëlee dugal leen ci biir gouvernement bii te bokku parti politique kenn ku ci nekk la mu bëgg yéen bi def ci taxaw seetlu tey xam ne ne parti yi nekk ci moom la jiital que soxlaas askan bii te fi toll nii population bi ñu ngi bëgg a dékki ak mar waaye Macky lijjanti wu leen de ay intérêt politique ñoo ko ñor lépp gi ci biir yéenekaay bi léeg fa yéenekaay moom ubbi xët bi yaatu jagleel ko élection locale yi ñu jëm ak enjeu yi mu am ne en Bokk Yaakaar fi toll nii moom dañoo jombi jombet ndaxte seen ñetti candidat yi ñu jël am na lu leen doy ci seen bopp Matar Ba Augustin Senghor ak yéenekaay bi ne xoolal Matar Ba ci ngarale la nar dëkk bëgg def campagne bëgg waajal gaynde yi ñu dem ci kan bi jour vote élection yi itam bëgg na ko teewee te lii gën graaw ci kaam moom Matar Ba bu moytuwul dana am defet bu rëy ci biir élection yi ndax Coupe d'Afrique des Nations bii yéenekaay bi ne defet kay bi am du doon moom dong ndax Augustin Senghor moom tam par force par force dafa war a fekkee ji Coupe d'Afrique bii ca Cameroun waaye nag bu ñu fàtte politique moo leen gënal luñ mën a am kon nag duñ foyee élection yi benn yoon yéenekaay bi dee suñu gaynde yi boo maytul ñu tey la leen ci préparation ba ba yegg ca Cameroun condition yi ñu war a demee yépp duñ ko toppatoo ubbi xët bu yaatu ne attention de am na luy xeeñ ci ëttu politique gi ndax yéenekaay bu nga xamante ne gis nga njabootu Abdoulaye Wade yii chaque jour ñu ngi gën jege Macky mi ak nguuram yéenekaay bi ne bu mu leen bett

day jàppale Macky Sall mii te ci élection yi par force par force benn bokk yaakaar da koy foofu ci Diourbel Sud Quotidien ba mu def taxaw seetlu ci violence yi nga xamante ne koy gis ci ëttu politique gi société civile bi ne duñu noppi benn yoon ndaxte fi mu toll nii lii xeeñ neexul dèjà rek ay violence physique commencé naa am ay xëccoo xiiroog ŋaayoo ba ci violence verbale ay tëkkuwante commencé naa am ci ëttu politique gi li ni mel nag wóorul ñu dem yi war nañu bàyyi xel bu baax côté sécurité commencé gis ba kumba naam ci réew mi lii quotidien mom ubbi xët bu yaatu jagleel ko coow lu li topp Miss Sénégal yéen kaay bi dañu xamal ne ndekete organisation élection mi Sénégal gi ciagatu da cey rax jaayante doole ak sàkko xalé yi nga xamante ni xamuñu dara yene kay bi def ci taxaw lu tay leeral ni Li deug tay deug mo di élection mi Sénégal yi dañ ci violé xalé yi jigen yi source a ubbi ci xët bu yaatu ne nay leer de gis nga élection mi Sénégal yi fi mu toll la doon neub lepp feeñ na ndekete xalé yi jigen yi bu leen ci élection yi sécurité bu baax sax duñ ko am xoolal ma kaawu mi Sénégal bu 2020 bi rek dañ ko mujjé violé ba mu am dom dom ji fi tol ni am na président weer présidente comité d'organisation bu Miss Sénégal bi di weddi li ni mel moom Amina Badiane di xamle ci biir yéen kaay bi ne faaw ma def nag ay leeral ndax coow li bizarre na lool irresponsable naka la ponkal mëgëm jëmb di xullee bañ koy biiral moom Amina Badjan yekk lu mel Miss Sénégal 2020 bi tay xamal sénégalais yi ne gis nga destination am nekkutoon Maroc son la woon te Miss Sénégal 2020 bi li ñu programmé woon ak moom modi et mu def ay émission teg ci ànd ak ministre de la jeunesse ci campagne de sensibilisation bi mu doon amal ci pandémie bi après loolu nag gisatuñ ko déggatuñ ko ndax dañ koy contacter duñu ko jot donte moom xale bu jigéen bii di Miss Sénégal 2020 xamaloon nañu ne mbiram day metti te dafa amone fibrom waye bobu lañ ko gëj a dégg moom Amina Badiane di présidente du comité d'organisation bu mi Sénégal bi di xamné ci biir yéenekaay bi né ñun amuñu temps wu jaay ay xalé bu jigéen dañu organiser élection Miss te dañ leen di loger ci ay hôtel yu baax sécurisé waye cadre yi ñu dégglu ci yaayu xalé bu jigéen bi di Miss Sénégal 2020 ruslo nañu lool ñun comité d'organisation bi le témoin yéenekaay né ciow li demeewul non dé déedéet scandale sexuel bu reuy mo am ci ciow Miss Sénégal gi ndax Fatou Dione mi gagné woon édition 2020 bi dañu ko violé te toppatoo wuñu ko te mom Fatou Dione mu naa am dom xalé bi amna na jamono ji 5 mois waye li ci gëna a grave ba léegi gis def ay test ADN ci comité d'organisation bii bépp góor bu fa bokk rek ñu defal la test xool ndax yaay bàyyu xale bii nga xamante ne nii Miss Sénégal bi jur na ko l'observateur ne am na lu ci louche de coow li moom am na lu ci louche am na lu ñu bëggut wax waaye lépp dana leer ndax kàddu njiitu comité d'organisation bu élection Miss Sénégal bii la mu wax teguwul incohérence

weddi tuuma yi tey xam le ne yaayu xale bu jigéen bii di Miss Sénégal 2020 la muy wax tegu ko ci dëgg te dafa irresponsable yéenekaay bi di ñu xamal ne coow li jeexagul de ndax sénégalais yu ubbi nañu pétition bëgg am 10 signatures pour tout simplement ñu écarter licence bi nga xamante ni moom lañ jox comité d'organisation Miss Sénégal bi dañu lijjanti mbirug viol bi ba mu leer naññi ba ñu xam ci seen comité d'organisation bi kan moo biiral xale bu jigéen Amina Badiane di présidente comité d'organisation bi di xamle ci biir yéenekaay bi ne dama ne Sénégal 2020 bi bu fekkee ne dañ ko violé moom moo ko nangu te aussi ne porter plainte bu porter plainte kay lépp leer waaye ñu ëmbal la nga toog 9 mois xale bi juddu ba am juróomi ngay soko wax ne dañ maa biiraloon ah li nak ay sabotage la no rew mi nak neex na ba nopi waw ki lepp ken duko wax man duma ci commentaire te ci ubi débat ba subak jam inshallah sababu lulen sababu sababu

77 030 48 40 bu ngeen wootee ci yile numéro di ngeen jot ndaw yi ngeen bëggul bu Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha Sy wan leen ana nan ngeen di def ba mën a agsi ci bile bërëb bés yi nga xamanteni mom la kenn bëggul bu Cheikh Seydi Sy di consulter Talata àllarba